noo ngi jiital si nuyoo bi Baye Serigne ba Baye Serigne Assane sekk di ko ñaanal yal na yàlla yàggal ko ci kanamu njaboot gi yal na yàlla defal ko ndam ci liggéey bi nga xamante ni moom la yoral maamam waaye di nuyu njaboot gi ñëpp euh, di nuyu axlul quraan yëpp euh, jël nuyoo bi nag teg ko ci loxo Serigne Daara euh, Serigne Mor mi nga xamante ne bii. Euh, mooy Serigne Mor Gueye nekk Serigne Daara fii nga xamante ne bi fii la ñu ñëw tey euh, samedi 10 juin 2023 ñëw fi nga xamante ne bi moo di Daara ma Madické Seck euh, bu ñu nee Serigne Madické sekk nag ni cene ba ma Madické Seck moom borom yàlla nee na Serigne Madické Seck mi ñu gën a miin ci borom yàlla nee na fayte woon fële ci cene ba Kajoor yoroon fa liggéey bu am solo. daara ji nag ki nga xamante ne bii moom moo ko sos mooy mu xaddam euh, Serigne ba Gueye nekk mu xaddamu Seexu ba euh, mu xaddam boo xamante ne bàyyi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck septième général bu Thiénaba moom moo ko mu xaddamaloon euh, ndax ay taxawaayam yu am solo moom moo sos daara ji fii nga xamante ne moom moo di dëkkam fii nga xamante ne moom moo di kër Ngagne Gueye nga xamante ne mi ku ko tudd tudd d'islam ku ko tudd tudd ay magam yu baax daara ji nag ki nga xamante ne moom moo ko yor jiite jàngale mi ak njàng meeg njàngale mi euh, moo di euh, Oustaz Mor Gueye euh, moom la ñu fekk si tey ak ñi mu ko bokkal ñëpp xale yaa ngi noonu fas yéene génn dem fa nga xamante ne moo di tànt ba fa la ñuy amele cérémonie bi nga xamante ne bi moo di tari bi bu ko defee rek di ñaan ñëpp topp ko ñëpp bàyyi ko xel yaakaar naa ni daaw àndoon nañ ko ak eh, yéen ren itam ñu fas yéene ko ànd ak yéen ba mu jeex nii ñu ko commencé ak bisimilahi rahmaani rahim yal na yàlla daf ñu yeggale ko ak alhamdulilahi rabil alamin yal na fi ay kaa yu bëree bëree bëree bëree bëri génn yaakaar naa ni nag tey nag am na benn kaang boo xamante ni bi génnee na fi muy benn soxna soo xamante ni yaakaar naa ni ay at yu néew la di ngeen ko découvrir ci élément yi nga xamante ni moom ngeen di am ci kanam eh, bu ko defee rek eh, du ñu guddal dañuy wàcce suñ kàddu rek bàyyi leen ngeen topp programme daara ji fii nga xamante ni moom moo di Kër Ngagne Gaye samedi 10 juin 2023 deuxième édition conférence annuelle daara Serigne di Seck tamit di wax rek képp koo xamante ni bi yem nga ci vidéo bi rek nga abonné comme niñ leen koy wanee nii te laal cloche de notification bi bu ko defee rek lépp loo xamante ni bi Shamsu TV mi ngi koy dugal ci seenam yow kenn du la ko njëkk a seetaan loolooy avantage maanaam soo abonné nii comme niñ lay koy wanee nii ba noppi nga laal cloche de notification bi comme niñ la koy wanee noonu lépp lu Shamsu TV dugal dootoo xaar ñu lay envoyé lien wala ngay laaj ñu envoyé la programme boobu waaye buñ ko dugalee ci euh, chaîne YouTube bi rek automatiquement dafay signaler sa téléphone bu ko defee nga bokk si ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoo koy njëkk seetaan kon dee leen abonné tey commentaire tey tey laal cloche de notification bi tey aimé itam ndax loolu mooy dooleel chaîne bi mbokk yi kon élève yaa ngi noonu génn nañu daara jaa ngi noonu euh, muy daara Serigne Madické Seck borom yàlla nee na euh, daara jaa ngi noonu di daara ju am solo joo xamante ni bi yaakaar naa ni ku seetlu ni ñuy doxee euh, biñ ko sosee ak léegi yaakaar naa ni yàggul waaye ku seetlu doxalin bi ak njàngin bi ak pasos bi fi nekk ak yitte yi xam ni daara ji la daara joo xamante ni bi daara ju am solo la waaye tamit ci biir programme bi Euh, dina am conférence bu fi am Euh, kii amal conférence bi maanaam kii amal waxtaan wi mooy oustaz Mouhamed Alioune Guèye Abou Taa euh, di nekk dëkk fële ci ba yor fa daara joo xamante ni tam mooy daara ju mag joo xamante ni moom itam mi ngi def ay résultats yu mucc ayib euh, ñu koy ñaanal bu baax a baax muy doom ci suñu wayjur wa ba oustaz Alioune Guèye yàlla na yàlla dolli ay leeram yàlla na yàlla dëkkal ko jannatul illiyina moom moo fas yéene amal waxtaan wi bu ko defee rek mbokk yi daara jaa ngi noonu daaray Serigne Madick Seck borom yàlla nee na ñuy amal seen deuxième Euh, sortie de promotion euh, taille samedi euh, Yamok 10 juin 2023 xale a ngi génn nañ ay way yu am solo lañuy ñuy amal waaye tamit ci bir way ay message yu am solo lañ ci jàllale ñi ngi prêter attention ñëpp ñu bàyyi xel wayi xale yi waaye tam ñu bàyyi xel bu baaxa baax message yi nga xamanteni bi ñom la xale yi di jàllale ci bir way muy message yo xamanteni bi xale koy wax waye yaakar na ni message yu am solo la bu ko defé rek xale yaa ñu non ñi ngi commencé way ñu wacce suñu cadre rek bàyyi leen ngeen déglu leen inshallah للصلاة للصلاة صلوا تفلحوا للزكاة للزكاة آتوا تنجحوا للصيام للصيام صوموا تصيحوا بيت الله بيت الله, بيت الله

jàppee nga toll. joxe leen azaka. joxe leen azaka. joxe leen ngir ngeen mucc. joxe leen ngir ngeen mucc. woor leen woor leen. woor leen woor leen. woor leen ànd ak wér. woor leen ànd ak wér. aji leen maaka. aji leen maaka. aji leen ñu jéggal leen. aji leen ñu jéggal leen. ishadu annahu. ishadu. اشهدوا أنه اشهدوا أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله اشهدوا أنه اشهدوا أنه محمد رسول الله محمد رسول الله للصلاة للصلاة للصلاة للصلاة للصلاة للصلاة سدلني يلا سدلني يلا لا seede leen Muhammad yàlla ko yónni li zakati li zaka li zakati li zaka zakati li zaka li zakati li zaka atu tanjahu atu tanjahu للصيام للصيام للصيام للصيام للصيام للصيام للصيام للصيام صوموا تصيحوا صوموا تصيحوا بيت الله بيت الله بيت الله بيت الله بيت الله بيت الله بيت الله بيت الله حاجوا يغفر لكم حاجوا يغفر لكم سدلني الله سدلني yàlla buur bi kenn la. yàlla buur bi kenn la. seede leen Muhammad. seede leen Muhammad. yàlla ko yónni. yàlla ko yónni. julli leen julli naa. julli leen julli naa. julli leen julli naa. julli leen julli naa. julli leen ngir texe. julli leen ngir texe. joxe leen azaka. joxe leen ngir ngeen mucc. joxe leen ngir ngeen mucc. woor leen woor leen. woor leen woor leen. woor leen ànd ak wér. woor leen ànd ak wér. aji leen maaka. aji leen maaka. aji leen ñu jéggal. اشهدوا أنه اشهدوا أنه اشهدوا أنه اشهدوا أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله اشهدوا أنه اشهد أنه اش... اعتدال واحد واحد واحد اثنين اشهدوا أنه اشهدوا أنه لا إله إلا الله اشهدوا أنه اشهدوا أنه محمد رسول الله للصلاة للصلاة للصلاة صلوا تفلحوا للزكاة للزكاة للزكاة للزكاة للزكاة للزكاة آتوا تنجحوا للصيام للصيام للصيام للصيام صوموا تصيحوا الله الله محمد رسول الله اعتدد اعتدد Thank you. ànd ak seen i anarchiste yu am solo. booy sàpp yi na jub oh sàpp yi na jub coach. kon bàyyi ma bàyyi ma bu fekkee njëkk na yàgg sa équipe man ngeen yóbbu bi. ndax am na solo ñoo xam ne ñoo ngi foofee ci bërëb doon. waaw te bu ñu jëlee jël leen di ñëwaat. Eh, ah, jël bu fekkee nag léegi bisimilah bàyyi ma ثلاث اشهدوا انه لا اله الا الله يا صوموا تشرقوا بيت الله بيت الله بيت الله بيت الله بيت الله بيت الله حاجوا يغفر لكم حاجوا يغفر لكم سيدي يا الله سيدي يا الله يلا بربي كنولا يلا بربي كنولا سيدي محمد أنت جوخين جنجن مچ وورلن وورلن وورلن عندك أجيلن ماكا جلن في للصيام للصيام للصيام صوموا تصحوا اعتتد اعتتد اعتتد واحد واحد واحد واحد اثنين يا شباب المسلمين أنتم الآمال فينا جاهدوا في الله حقا ذكروا المؤمنين وانهضوا للعلم خافوا ربكم تاخذوا اللعينا أيوة سن بابا محمد يعني حقا ذكروه المؤمنين وانهضوا للعين خافوا ربكم تابعين في بالله ذكروه المؤمنين وانهضوا للعلم خافوا ربكم تاخذ العين نقول القرآن سبق نقول حقا ذكروا المؤمنين آه خلنا نخرج من أستاذ في ذكروا المؤمنين كل حين في كل حين صفكم كي لا يهينا حارب الأعداء فينا حارب الأعداء فينا ما شاء الله يا الله

وانهضوا للعلم خاضوا ربكم تاخذوا اللعينا أستاذ محمد ديان حقا ذكروه المؤمنين وانهضوا للعلم خافوا ربكم تاخذوا اللعينا بالله ذكروه ليلا وانهبوا للعلم خافوا ربكم تاخذوا العينا القرآن سبق حق ذكروا المؤمنين آه خلنا نخلي جميل أستاذ دقيقة جميل يا في الله

وحيد في كل حين صفاكم تهينا حارب الأعداء فينا أفسدوا خلقا وجينا وحيد في كل حين صفاكم ليلا يهينا حارب الأعداء فينا أفسدوا وحيدا وحيد كل عين وحيد في كل عين وحيد في كل عين سبقكم كي لا يهينا حارب الأعداء فينا أفسدوا خلقا ودينا وحيد يا شباب المسلمين أنتم الأمال فينا آمنوا بالله ربي واعملوا الخيرات كنزنا يا شباب المسلمين أنتم الأعمال فينا آمنوا بالله ربي جاهدوا في الله حقا ذكروا كل المؤمنين ولا دون العلم خافوا ربكم تخذوا العينا جاهدوا في الله حقا ذكروا xar ini na ñëpp jul ci alayhi sallallahu ishhadu annahu hmm. yéen yéenee ñan allah akbar ya a ko wax de waaw ndax xam ngeen sëñ Madické Seck mooy kan jar naa xam de oustaz laajal ma leen kan mooy bàyyi Madické Seck yéen ah allah ma xool fu ah sagam nee na ñoom ñooy waa daara ah. te waa daara amoon nañu bàkk ndax mbër mi mbër mi dem ca làmb ji am na bàkk ah. ñu faaw ñu laaj leen luy seen bàkk kon baax na bismillah luy seen bàkk allah xam lii eh. def ci doomu aadama mbokk yi waaw waaw jàng xam jëfe ak yaru ndeysaan allahu akbar luy ko ci ñun ñëpp macha allah. waa man ngeen ñëw. waaw. hi xale yi dëgër xale yi dëgër fit. ma ngi jëm ngeen ma ngi jëm Oustaz bismillah. waaw. ci lan. waaw waaw Oustaz xale yi dëgër na fit. waaw. et eh, comme mën nañoo yee ci diine kay nañ leen déglu. waaw ah, bu la la ñu jéem a xool waaye comme ci diine la ñu wax. Ah. te diine la ñuy jàng. Ah. dañuy déglu ñu yeeju incha allah. bàyyi ma laaj leen ay ay questions. ayca bismillah. li moom doo leen ko tontu xam naa. ponki islam yi ñaata la. ponki islam yi juróom la. ah léegi mu ñëw de. ponki islam yi de juróom laa ci xamoon. ma xool ndax yi ñuy wax noonu la am déet. afaaru. ponki islam yi ñaata la. ponki islam yi juróom la. waaw waaw. macha allah أشهد أن دور أمام دور يتخاو دي فيلمي بو ñu mané bayyi dem tok ndax day bok ci li jaxase liggéey bi ñu bayyi yoon bi inshallah yi أمام ضوء أمام ضوء ما شاء الله أمام ضوء أمام ضوء إلى السماء ما شاء الله نبيك تلقي تكو إلى السماء إسلام دايكاي وفو نحمل فينه inshallah. جبهة كتيف صدور صدور صدور أما ميزان اعتدل ما شاء الله ميزان اعتدل طمئنين الطمأنن طمئنين من ضرب يا من ضرب ما شاء الله يا من ضرب لمليني وخني دو اي ولوف ده يا من ضرب اي عرب يلير نانجنا تيول غونا يان كوي دغ دي اندك نيم ديكو توك سي لمليني وخ السريع ما شاء الله السريع صدره ما شاء الله aha na parents yi dégg na parents yi dégg. sadra. macha allah déggu ma de. déggu ma de. loolu oustaz lu wér wallahi alazim jërëjëf oustaz Baye Mor yaag ñi nga bokkal liggéey bi yàlla na yàlla barkeel allahumma amin ya rabbil alamin bismillah كعبي كعبي الله أكبر كعبي كعبي يا الله يا الله كعبي كعبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه الجد أهلوا ايه الجد يا من قرب تسليم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه الجد أهلوا لن وسهلا دلنا جم ين واهل القران يم jaamu bu yàlla la te am ndawam la mm-hmm. baay moor ak ban li solaati li sola nee na julli ci jëmbi boppam moom julli ah sallu tuflihu nee na ngeen julli ndax ngeen texe kon kuy julli da nga texe ëllëg yal na yàlla boole ci ñiy julli alladina hum fi salatihim xaashi'un ñiy julli ànd ak di toroxlu te julli ga ñuy julli yàlla yàlla boole ci ñooñu. amiin yaa rabbi. Oustaz ak ban. li zakati li zaka. moom joxe azaka nga xam ne joxe yóbbu. waa dégg ñenn ñoo am joxe. xam nga seddaay ñoo yem. joxe joxe bi dina waa nangoo gën a ci alal li la yàlla jox nga jox ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ko moom. Atu tanjaxu Atu tanjaxu ngeen joxe ndax ngeen mucc ndax ngeen ndax ngeen mucc loolu yombul de joxe yàlla ko yàlla tàmbaloo lu waaye génne joxe ko saa boobu yàlla da lay joxaat la li nga war joxe saa soo ko rek borom bi téye dam la waroon a jox mooy boo génnee joxe muy a joxe waat yaan yàlla tàggatal nu suñuy xol ci ñuy joxe te lépp sell ngir jëmmam ji moom borom subhanahu wa taala Oustaz ak ban li siyaami ci jëm boppam jëm bi tasixu wala nee na ngeen woor ndax ngeen am ak wir ak koor mbokk yi joxe wér gu yaram ngeen loolu woor ci jëm boppam day joxe ak wér kon ku ko tàmm loolu jëm ko tàmm ku ko tàmm it jëm cee continuer ndax koor mooy woor weeru koor donc ba mu jeex déedéet am na yeneen i koor yi sunna yoo xam ni nit bi sallallahu alayhi wa di koy def bokk na ci yooyee woor bisub alxamis ak woor bisub altine képp koo xam ni tàmmu ko bu ko yàlla man loowee dee ko mas di nga gis ci sa bopp ak wér goo xam ni doo ko foogee wenn yoon kon gone nee ngeen woor ndax ngeen amul wér oustaz ak ban wala jeex na baitillahi baitillah baytillahi baytillah nee nih bi yalla ñu fa yàlla yóbbu ñun ñep amin ya rabbi ñi fa demon yalla ñu fa demaat amiin ñi fa demugoo yàlla ñu yombal fa ya rabbi néegu yàlla boobee lakum haju yaghfir lakum nee ngeen aji ndax borom bi subhanahu wa taala man leena a jéggal seen i bàkkaar yalla yàlla yóbbu ñu fa ta jéggal ñu seen i bàkkaar ñun ñëpp ñu nekk ci wàccaay ngir dem yal na yàlla yombal leen ba ñu dem ak jàmm. amiin yaa bu ñu demee yàlla defal leen xajjan mabruuran wa damban maxfuura. te yàlla defal ko ñu dem ak lu tam incha allah. i'tidad. Eh, incha allah. taqabbalu. oustaz dafa mel ne xale yi jàkkaarloo nañ de. waaw loolu laa gis nii damaa xamul lu ñu bëgg a def. lu war a xew. waaw lu war a xew fii daal laa bëgg a xam. ump na ñëpp danaa mel ni. maa du ay kuur fan ñu war a jóg. <laughs> aw sas. loolu la xanaa waa bas bi ko seetaan. njëkk ba suur jàkkaarloo yëkkati ay kurpañ. daanaka seen temps bi dañuy xatal <laughs> waaye di ko doon de. ah kay boole nañ ci ak ñàngal gu ma sëkk. yaa min dor. takbiir. dafa ndekkewu leen. dafa mel ndekkeeguñ de. waaye acca takbiir. takbiir. ah maa ngi ah daa mel ni dégguñ parents yi dégguñ lool de. dégguma man de dégguma li ñu wax de. ah ñu jaaraat ci takbir. Ah, allahu akbar. gone yi nee nañu màggal borom ci boppam ci la ñuy dund ci la ñuy dee incha allah. Eh, ah, ndawi Sénégal kaddu yi ñoo ko moom ñoo war a doon ëllëgu Sénégal.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 ba aljana daara ji bisam su tv la ni bege ba aljana ay waay di ko bege waay ba aljana ana waa daara ji samsu tv la ni bege ba aljana ay ba aljana waa samsu tv la ni bege ba aljana di ko bege